titre foncier wu 4 hectares bi nga xam si moom moo nekk ci wetu arène nationale bi arène nationale bi je pense que ñëpp xam nañ ni fi ñu ko def barax la woon et barax boobu bi ñu ko fi defee ba pare dafa am espace bu desoon espace boobu desoon nag euh, je pense que bi ñuy def pose première pierre bi le président Macky Sall am na ay infrastructures yu mu fi diggee woon mais nag ci biir loolu à notre grande surprise dañoo toog ba ci yàgg jékki-jékki gis ancien directeur de campagne bu maire Amadou Diarra ñu koy wax monsieur Macoura Mboup ñu fekk ko fa muy tabax ànd ci ak ay agents yoo xam si Pikine noor la ñu dëkk sol aussi ay tenues commune Pikine Nord tenues yu ñu soloon ginnaaw Pikine Nord lañ ci bind. et biñ ñëwee interpellé ko danañu maire moo ko fiy tabaxloo lan la ko fiy tabaxloo benn hangar ba nga xam dina jël 72 euh, mètres de long ak aussi vingt 24 mètres de large et 7 mètres. d'auteur et bi ñu ñëwee aussi waxtaan ak moom pour mu arrêter mbir yi mais yemuñu ci loolu dafa am ñu interpeller le maire ni ko monsieur le maire kat gis nañ fële na le espace boobu ñu fay tabax te xamuñu lan moo lan lañ fay tabax te espace bi dafa am loo xam si dañ ko faa nam population bu Pikine Nord dafa may ay infrastructures yu ñu fa namoo def mu ñu moom yëgul tinul li ñu fay def monsieur le maire ci boppam. te promoteur bi ki doon tabax foofu nee nañu maire moo koy tabaxloo te ñi ñu fa fekk ñuy tabax aussi gilet yi ñu sol ay Pikine Nord lañ fa bind. photo yi je pense que après mun nañ ko partager ak parce que photo nañ leen def nañ lépp parce que ñenn ñi sax bi ñu leen njëkk a interpellé ci conseil municipal bi dañ ñu assainissement lañ fay defal population bi. mais bi ñu ñëwee laaj promoteur bi nga xam moo fay tabax ci boppam moom danañu hangar lañ ko fay defloo waaye à notre grande surprise dafa xam si ñoom ñoo interpellé le maire le maire ni moom yëgul lan lañ fay et ci lañ nag ñun jël suñu ay responsabilités en tant que des jeunes yu dëkk ci commune bi en tant que des conseillers municipaux en tant que aussi des responsables de la commune ñu ni promoteur bi na arrêté foofu lan la mu fay def ba ay jàppante xaw fa am bi ñu commissaire woowee ñu dem ci commissaire waxtaan ak moom jógee fa aussi dem ci sous-préfet waxtaan ak moom ci la sous-préfet ñëw arrêté les travaux waaye nag ñun loolu lañ gisoon yaakaar ne loolu hangar kese moo fa doon nekk mais à notre grande surprise bi ñu defee suñuy gëstu ba dugg ba ci biir. ndekete loolu luñ doon def la noonu rek pour muur suñuy bët ndekete ñoom dañoo def lotissement boo nga xam si quatre-vingt-dix-huit parcelles de terrain à usage d'habitation lañ def lotissement ci suuf boobu noonu et loolu li ñu ko xamloo mooy que ni dafa am ay boo yoo xam si ay ay bail yoo xam si à usage d'habitation yoo nga xam si directeur des domaines ñu ngi tuddoon moo Gueye ex directeur des domaines moo ko signé am ay nit ñu ñu ko jox jaay leen ko pour ñu dëkk foofu noonu euh, Euh, ci suñu suuf te la nga xam si conseil municipal yëgul tinul musu ñoo def délibération sur cette question pour wax que ni foofu dañ fay def ay terrain a usage d'habitation am na nag délibération bu ñu mës a def délibération boobu bu koy def dañ doon laaj suuf si foofu parce que foofu domaine privé de l'État la dañ doon laaj suuf si État pour def ay infrastructure collective lu ci mel ni préfecture parce que Pikine amul préfecture lu ci mel ni maison de la jeunesse parce que Pikine da soxla lu ci mel ni maison des femmes parce que Pikine da soxla lu ci mel ni euh, centre des métier parce que Pikine da koo soxla ak aussi ZEE ba nga xam si maire moo ko proposé woon boppam conseil municipal. mais à notre grande surprise dañoo dindi loolu léegi nee nañ ay kër lañu fay def kër yooyu nag bi ñu ko def dañu cee lëkkaloog benn promoteur bu moom entreprise Xerus bu tudd Duuru Diallo moom nee moom moo sëkk foofu parce que foofu. Euh, réellement sëkk nañ ko bi ñu koy sëkk nag jaaxaloon nañ trop parce que xamuñu woon ku koy sëkk mais neena moom moo lëkkaloog maire bi ci ay waxam waxu Doudou Diallo nee na am na convention bu mu signé avec la commune de Pikine Nord pour exploiter site boobu noonu te convention nag li koy tënk ci wàllum collectivité territoriale dafa am lu ñuy wax kat article 81 lépp lu jëm ci wàllum convention balaa ñu koy def foog conseil municipal bi def ci délibération et foog conseil municipal bi aussi gis convention bi xam convention bi lan lay wund lan lañ fa war a def ak nan lañ koy defee mais ba fi ñuy wax ak ni am na conseil municipal yu toog fii musuñu gis convention musuñu gis contrat bu lié bu lié le promoteur Doudou Diallo avec son entreprise Xérus ak la commune de Pikine Nord donc foofu ya je pense que am na faux et usage de faux ba nga xam si ñu ngi fay am bi ñu jóg bi ñu gisee loolu nag dañu jug dem rencontrer le directeur des domaines en l'occurrence monsieur Modou dama naan sax ex des domaines moom aussi mu leeral ñu ci lu bari ni ñu moom li mu jàppoon ak la fay am gis na ni bokkul moom sax ci boppam jëloon na engagement ni baa yi mu fa jot a joxe yépp da koy annuler engagement boobu la jëloon devant nous mais gisaguñ matérialisation boobu noonu maintenant moom mu jox ñu ay information yu bari par rapport ak site bi aussi wax ñu effectivement am na ay terrain à usage d'habitation yoo xam si moom lañ fa bëgg a def ba nga xam si promoteur bi ak maire ak ñoom ñëpp defar nañ seen ay liste boo wax tur yi fa war a nekk yi nga xam seen kër war na war na fa nekk mu am ay kilifa diine am ay conseils municipaux am ñoo xam si aussi ci population bi lañ nekk temps yi ñoom ngeen gis ñu jug di tëb a dal pour defendre loolu pour mu jàll parce que ñoom déjà am nañ ci terrain yi jàpp nañ ni am nañ ci terrain yi parce ñun jàpp nañ ni kenn amu fa dara parce que foofu kenn du fa tabax terrain bi ñu jógee ci moom aussi moo duggee ci moom daf ñu boole ak Doudou jàll li ñu dem leen ngeen waxtaan ak Doudou Diallo le promoteur woo ko pour mu recevoir le collectif moom aussi na le collectif ci la ñu joxee information yi bari ni ñu moom signé nag contrat ak maire ba pare convention la signé ak le maire ba nga xam si moom am na lu mu ci war a am parce que moom moo exploité nee na def na fa lu mat 400 millions ci wàllum sëkk bi ay camion suuf yu bari la jënd sëkk foofu nee na. nee na aussi ci biir terrain yi am na terrain yoo xam si maire moo ko moom am na terrain yoo xam si waa domaine dañ ko sedd am na terrain yoo xam si moom moo ko moom donc maanaam pàccoo nañ suuf si ñoom seen biir ba pare ñun ñi nga xam conseil municipal Pikine Nord yëguñu ci dara loolu muy benn. beneen bi aussi mu ni moom état lay liggéeyal te nee na moom am na doole yoo xam si mun na dugg ci service su état yi def lu ko neex te ñun bu boobaa duñ ci mën dara. et beneen bi aussi mooy que ni sëkk nañ ko ba auteur boo xam si tey ñi dëkk quartier Ndiassane je pense que ni ñoom su xiinee rek waxuma sax taw instant bu xiinee rek ñoom ñëpp dinañ jën parce que tey sëkk nañ ko sëkk boo xam si tey même. waa ONAS ñi nga xam si amoon nañ fa euh, euh, ay tuyaux yoo xam si moo doon évacuer les eaux de pluie foofu yëpp fatt nañ ko te li ko def mooy promoteur Doudou Diallo te amul benn autorisation boo xam si moo ko may moom ak le maire Amadou Diarra ak waa domaine ñoom ñoo ànd lëkkaloo def di faux usage de faux bëgg koo teg ci ndoddu askan bi moo tax nag ñun ñuy yëgal askan bi yëpp askanu Pikine yëpp waxuñu sax Pikine Nord kese am na luy waaj a xew ci site boobu noonu te ñun en tant que des élus en tant que aussi askanu Pikine Nord des jeunes yoo xam ne dañoo fonk seen gox loolu duñ ko seetaan te duñ ko nangu déjà préfé le sous-préfet de Dagoudane arrêté woon na lee travaux fan yi gisaat nañ leen ñu ngi ñëw di rond foofu pour nee nañ dañuy continuer seen ay travaux léegi nag ñun ñu ngi interpeller état ñu ngi interpeller aussi le préfet de Pikine di ko wax que ni. képp kuñ fekk ci site bi nga fay def dara lépp lu fa xew ñoom ñoo jël seen ay responsabilité parce que ñun du ñu seetaan li nga xam si moo fay moo fay am tant que teguñu ko ci yoon bañ gis këyit yu leer ni lii kat moo fa war a nekk et que population bi askanu Pikine représenter par le conseil municipal les conseils municipaux délibéré nañ boo wax lii moo fa war a nekk parce que conseil municipaux yi délibéré nañ ba pare wax lii lañ bëgg mu nekk fa maanaam li ma doon wax sànq muy que ne bëgg nañ fa terrain euh, stade municipal bëgg nañ fa école primaire bëgg nañ fa maison euh, des femmes maison des jeunes bëgg nañ aussi préfecture Pikine bi nga xam si mu ngi géejawaay ñu indil ñu ko fii Pikine moom rek lañ dese suuf ak yeneen infrastructure yi nga xam si bëgg nañ ko yëpp ñu tënk ko ci conseil municipal conseil yëpp délibéré ko ñu doog xam lan lañ fay def mais benn promoteur du jógee fa rek yor xaalisam xamuñu lu mu séq ak maire ñëw ni dañuy dagg suñu suuf def ko ay terrain jaay ko loolu ñun duñ ko seetaan en tant que des jeunes de Pikine Nord maintenant nag ci biir loolu le maire bi ñu ko ci interpellé ba léegi nangu wut a convoqué conseil municipal toog na presque cinq mois di daw question bi nee na du convoqué conseil municipal lu tax nag ñu woote euh, ndaje bi le maire dafa jékki-jékki convoqué conseil municipal def ci 10 points ci ordre du jour bi nee na ñaari fan la ñuy def conseil municipal bi day am premier jour am deuxième jour waxu suuf si nga xam si ñun moo ñu gën a soxal mu jël ko yóbbu ko dernier point ci deuxième jour bi pour bu ñëwee bëlëfe ko mu dem moo tax dañ leen di yëgal yéen ñëpp surtout la presse jour boobu noonu bu leen ko manqué surtout deuxième jour muy le vendredi yéen ñëpp ngeen ñëw teew xool la moo fay xew parce que li ñu bëgg mu leer dinañu ko leeral ci conseil municipal bi parce que nee moom foofu lay leeralee su doon leeral point boobu je pense que point bu am solo la benn fan kese moom kese kese kese jaroon na ordre du jour conseil municipal mais mu jël ma 10 points tënk ko ci dernier point la ko def dixième ci conseil municipal bi nga si moom la ñu war a et te ni mu ko ci defee aussi mbiru caaxaan la parce que nangu wut a tudd convention bi mu am ak promoteur bi te promoteur bi moom nee na am na convention mais promoteur bi nangu wut a génne convention bi ñu teg suñu bët ñun bu boobaa bu ñu ñëwee dinañ laaj maire convention bi ko lie ak le promoteur yéen ñëpp ngeen teew fa aussi ak seen i caméra xool moom lan lay tontu parce que promoteur bi moom nee na am na convention bu ko lie ak le maire Amadou jara le directeur des domaines aussi confirmé nañu ni am na convention bu lié le maire Amadou jara waxuma la conseil municipal de le maire Amadou Diarra ak le promoteur te le maire moom moomul suuf si bay signer convention c' est le conseil municipal mooy autoriser la signature te conseil municipal musul autoriser cette signature là donc nag fi ñu jëm mooy que ni euh, conseil municipal boobu noonu convention bi dina génn wala ñu xam nu ñuy def maintenant li ñu jaaxal ci mbiri moo tax ñu bëgg a ay questions question yi ñuy laaj mooy que ni moo duggee le directeur de domaine wax na ni moom suuf si fekk na bu yàgg ñoom ñu commencé dox promoteur beeg Amadou Diarra nee na aussi joxe na ay bail mais da ko joxe sur la base de délibération ba nga xam si commune bi moo déposé te délibération boobu aussi lu am solo da cee am parce que dañuy ñëw conseil municipal le maire Amadou Diarra def ci ordre du jour bi ni day demander à que le conseil municipal autorise ko à négocier. et à signer des conventions pour exploiter suuf si nii conseil municipal boobu conseil municipal yi fi nekk yëpp mun nañ ma témoigner man maa jël parole ni ko monsieur le maire damay def amendement ñun kat mun nañ la autoriser nga négocier parce que yow yaay personne morale commune bi mais mënuñu la autoriser nga signer lu ñu gisul donc dañ lay autorisé nga dem négocier yi boo négocier ba pare indil ñu ñu xool li nga négocier ñu doog la autoriser nga signer mu ni moom d'accord na loolu donc dinañ dina dem négocier ji bu paree ñëw. su fekkee li mu négocié doy na ñu autorisé ko mu signé mais malheureusement à notre grande surprise dañu jékki-jékki gis mu publier benn délibération boo xam ne na ñun ñoo ko def te ñun yëguñu ko ne na ñu ñoo ko autorisé mu négocier ba pare signé convention ak Doudou Diallo te convention boobu ñun teguñu suñu bët donc foofu yaa a du faux et usage de faux maintenant nag dañ koy laaj si ñetti version yi nga xam si moo jot am moom le am lu jara li mu wax le promoteur li mu wax ak Modou directeur domaine li mu wax lan moo ciy dëgg loolu dañ koy laaj beneen bi mooy nan la benn promoteur mën a gagné marché boo nga xam si existé wul parce que marché bi ñuy wax nee nañ dañ ko signé entre le maire et ou bien la commune et le promoteur te marché boobu amul fenn fu mu figurer ci code ci euh, plan de passation de marché wu commune bi de 2021 à aujourd'hui amul fenn fu marché boobu noonu di feeñ mun ngeen a dugg ci surtout euh, ARMP bi ngeen vérifier yéen en tant que des journalistes beneen bi aussi mooy pourquoi contrat bi nga xam si moom moo lié nee nañ moom moo lié man du ma wax la conseil municipal du wax la commune moom moo lié Amadou Diarra ak promoteur bi pourquoi contrat boobu noonu conseil municipal yi mënuñu ci teg bët lan lañ ciy nëbb su fekkee daf contrat bi am na lan lañ ciy nëbb beneen bi mooy ban montage financier lañ def ban montage financier lañ def maanaam commune bi loolu mu bëgg a tabax parce que moom ci lim délai lim li mu lëkk li ko lëkkalee promoteur bi nee na centre commercial dafay am centre commercial boobu nan lañ koy tabaxee. kan mooy génne xaalis bi bu ñu génnee xaalis ba pare commune bi lan la ci am montage financier boobu noonu aussi bëgg nañ su fekkee existé na ñu génneel ñu ko ñun ñu gis ko. maintenant euh, pourquoi moom bi ñuy laaj suuf si parce que suuf boo koy laaj domaine dafa am yoon bu muy jaar foog nga def délibération wax li nga ci bëgg a def pour pourquoi bi ñuy laaj suuf si mu ñëw def la ñu délibération ni ñu lañ fa bëgg a def préfecture. dañ fa bëgg a def GIE dañ fa bëgg a def maison de la jeunesse dañ fa bëgg a def centre des métiers dañ fa bëgg a def terrain ba tudde woon terrain bi sax terrain Mathurin Sagna pourquoi bi ñu demee ba domaine accordé leen ni ñu léegi suuf si ci ay waxam la monsieur le maire moo ñëw conseil municipal ni ñu léegi wax leen alhamdulilah suuf si ñu doon laaj muy 4 hectares yi euh, le président Macky Sall jox na ko Pikine Nord léegi ni ñu léegi wax leen alhamdulilah lépp lu ñu fa bëggoon def ko fa def maintenant pourquoi bi ñu demee war a signé. ak promoteur ba nga xam si mooy exploité loolu pourquoi ñëwaatuñu indi convention boobu noonu conseil municipal ñu délibéré si loolu aussi ñu ngi koy laaj le maire ak aussi ñi nga xam si ñoom ñoo séq mbir muy le préfet bi nga xam si moom mooy valider euh, ces délibérations li ñuy laaj autorité étatique gi nag mooy ñu arrêté systématiquement lépp loo xam si mu ngi xew ci site bi parce que bu ñu ko deful coow dina fa jubb juddu te boobaa ñoom aussi dañ leen di mettre euh, devant leur responsabilité beneen bi aussi bu ñu yem foofu parce que fii ñu toog nii mooy Ecopene fii ci ginnaawam yëpp booleen demee di ngeen fa gis ay arrêt d'escos soo leen paree mun ngeen a jël seen caméra yi soriwul ci ginnaaw théâtre de verdure ay tabax yu ñu fay tabax ñu tuddee ko arrêt d'escos ñu arrêt d'escos ñëw fa ba arrêté ko mais ñi ngi continuer di tabax guddi pour régler loolu yëpp dañuy laaj l'état du Sénégal notamment le premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam si tey gis nañ bi mu ñëwee ba léegi problème foncier mi ngi ciy taw taxaw bu baax di ko régler dañuy laaj ñu auditer foncier wu Pikine Nord yëpp ñu xam Pikine Nord lan moo fi nekk ci suuf kan moo ko moom ak suuf si aussi nan lañ ko joxee dañuy laaj audit boobu noonu ñu defal ñu ko au niveau de Pikine Nord. beneen bi conseil municipal yi li ñu leen di laaj yu Pikine Nord population bi moo leen fal population bi moo fal monsieur le maire ni ko yow kat lañ wóolu jiiteel ñu commune bi mais dafa am conseil municipal yu mu fal aussi toxtal ko ci ni ko yéen aussi dee leen ñu saytul li maire di def conseil municipal yooyu aussi ñu ngi leen di woo leen mettre aussi face à leur leen wax que ñu taxaw. pour défendre suufu Pikine Nord bi parce que suuf bi kese kese kese la Pikine Nord dese donc ñu ngi woo Pikine Nord yëpp conseil municipal yëpp du ñu yem rek nag ci conseil municipal yi parce que am na fu muy toll moom moo am majorité biir conseil municipal am na fu muy toll population bi moo koy régleel boppam donc ñu ngi woo population Pikine Nord bi yëpp di leen wax que ni seen alal la ñu nar a caxat caxatee donc vendredi mooy jouru conseil municipal bi bépp population ba nga xam dëkk nga Pikine Nord am nga droit ñëw assister ci conseil municipal bi amoo droit jël parole nag mais am nga droit ñëw bokk ci lañ fay wax donc ñu ngi woo population bi yëpp bu kenn toog sa kër nag ba mbiri passé nga naan conseil municipal yi jëluñu seen responsabilité ah ñun de lu ñu mën ak suñu kéemtalaay kàttan dinañ ko def question yi ñu wax bi dinañ ko laaj lépp lu ñu bëgg def te du dinañ ko bañ mais am na fu ñu tool population bi ñooy taxaw ni maire arrêté parce que nag commune bi koo jàppee moomeelam te moomu ko moomeelu ñëpp la ñun nag dañoo jug taxaw pour sàmm suñu moomeel donc nag li ñuy wax population bi moom laa ñëwaat rek pour que ñu érigé wu en bouclier en bouclier nag du xeex du xëccoo du sànni xeer du jamante paaka mooy que ni ñëw taxaw taxawaay bi ba ñëpp xam nañ li ñuy def ci commune bi ñor na leen et que d'accorduñ ci d'accorduñ ci parce que li avenir u Pikine Nord la avenir u Pikine Nord la parce que Pikine Nord amatul benn suuf bu fi des suuf bi kese moo fi des gis ngeen arène nationale bi ñu ko fi def forcé nañu def ko fi ñu ñu indil ay jafe-jafe lii aussi bu ñu seeraanee le pire mooy ñëw parce que dinañ fi def yeneen infrastructure yoo xam si xamuñu lan la ñuy jural ëllëg te benn doomu Pikine Nord du fi am parce que terrain yi li ma dégg ñu koy jaayee ñoom parce que am nañu ay courtiers yu wër di commencé jaay li ma dégg ñu koy jaayee amul benn doomu Pikine Nord bi sa poos euh, jotee jotee jotee ci suuf soosu noonu te ñun sax dañ faa bëggul suuf tey foofu ñu tabax fa ay kër li ñu fa bëgg mooy ñu tabax fa ay infrastructure d'utilité publique askan bi yëpp bokkandoo ko xale yi am fu ñuy fooye mag ñi am foo nga xam si dinañ fa euh, def seen ay activité donc loolu daal moo waraloon jotaay bi tey di leen waxtaan di leen sant leen gërëm yéen journaliste di sant aussi l'ensemble des conseils municipaux yi fi teew population bi ñu fi teew ñëpp parce que boobu ba léegi surtout la jeunesse boobu ba léegi ñu ngi jug taxaw taxawaay bi ñu ngi leen di yàq lu nekk ñu ngi leen di xoxotal ñu ngi leen di wax lu nekk je pense que tey alhamdulilah tey bu leneen xewoon bu nguur gi tàbboon ci yeneen loxo gëm naa ne ñun ñi ñëpp ñu ngi ci kaso bi parce que menacé woon noonu menaces yooyu defoon nañu ñu ko élection yi lañu moo leen fi bàyyi nee woon nañ bu élection yi jàllee ñun ñëpp nañu jël dugal ñu ci kaso bi parce que waxu suuf xale du ko wax élection yi nag alhamdulilah am na nu mu demee am nañ yaakaar ci nguur gi fi nekk pour mu fajal ñu suñu ay rangooñ parce que lii nii vraiment dafa nekk lu ñu soxal loo xam si bëgguñu bàyyi mu jàll donc nag ñi ngi woo population bi yëpp presse aussi yéen am ngeen ci solo ñu ngi leen di woo pour ngeen ñëw parce que bu leen waxtaan bi rëccee ëllëg bu génnee lu ko neex lay wax mais boo leen fekkee waxtaan bi li mu fa wax yëpp di ngeen ko di ngeen ko dégg li mu li ñuy tontu di ngeen ko dégg nañ xam fu dëgg bu di wax aussi le promoteur Doudou Diallo Pikine Nord fii amu fi suuf na bàyyi suuf si guddi gi mu fiy ñëw di suul li mu fi suul na bàyyi guddi geeg euh, euh, ñu fiy àndal di fi ñëw di fi def li mu fiy def. en tout cas bépp agent ba nga xam fekk nañ ko fa dinañ arrêté mbiri te jàppante mën na fa am di wax préfet ak waa euh, euh, euh, domaine ñu xool suuf si nan la ñuy arrêté mbir yi li ñu fay def ba pare bañ régler li ñuy regle ba pare ku fay def dara nga doog ko fa def donc loolu ñu ngi interpellé waat ñëpp di remercier waat ñëpp leen jaajëfal su ñu amee ay questions su ma naataangoo ñu ko tontu